ñaata alhamdulillah juróom-ñetteelu tomb ci kitaabu siyaam mu ne qaala al musannif rahimahullah borom téere bi yal na ko yàlla dolli yërmande mu ubbi bunt boo xam ne bunt bu am solo la ci ay nit yoo xam ne ay individu lañ ñoo xam ne weeru koor moo leen dab ginnaaw ba mu jeexalee ci tomb yu njëkk yi ñu doon jàngal li tax doomu aadama di woor weeru koor mu waxoon ci ñaata tomb hmm? mu waxoon ñetti tomb ba ci jiitu ñu gis weer ñaareel ñu mottali saabaan fanweeri fan ñetteel am lu ko muur mu nekk fi gisuñu ko dañuy mottali duñu woor ndax dañ ñoo ñu woor bisu sikki tey mu ne wa in saara ahlan li wujubihi fi asnaihi aw qadima musaafir muftiran aw tahurat xaaid mu ne amsaku wa qadaw <clears throat> mu ne qaala saarix ki ko doon firi mu ne waffaqahullah yal na ko yàlla dëppale ak li muy firi mu dëppoog la sëriñ bi jàngale mu ne yaqulu rahimahullah wax na yal na ko yàlla yaram moom borom téere bi baada ginnaaw an bayyana bu mu leeree leeralee man yajibu alayhi siyaam ana kan moo war a woor ana ñan ñoo war a woor boroom téere bi leeral na ginnaaw dar siy paase ci tomb bi mu ne ana ñan ñoo war a woor mu ne zakara huna masala mutafarria fi amma sabaqa mu ne tudd na fii ci bunt bi bunt boo xam ne dafa particulier maanaam far'u la ay individu la ciblé par benn benn nit wuuteeg ya nga xam ne ñoom ñoo jiitu ci ay tomb yamu leeraloon yi ay benn benn nit la la joxoñ mu ne wahiya insaara yaani asaxs mu ne yooyu mooy bu fekkee mujj naa nekk kan mu ne benn benn nit benn nit mujj naa nekk lan ahlan li wujubihi fi asnaihi kii day woorul woon waaye fii nu toog tey dafa war a woor fan yëpp na nga woorul woon waaye dañoo xëy tey rek islaam dal ci kawam ne ko tey dangay woor woor yaani mu ne loolu li mu bëgg leeral kan la ak lu tax mu ne fii asnaa il yow mi mu ne tey ji wooroo woon fan yëpp tey ji nga xëy rek ñu ne la tey jii day ci saa si heure bi dangay nga mu ne wa zalika ka an yabluga saxiirun dégg xale bu woorul woon xam ngeen xale warta woor walla war na woor dañ ko ci tàggat rek yar ko ci jàngoon nañ ko warul woor waaye nag tey jii dañoo jékki-jékki rek ñu ne ko da woor lu ko ndax dafa mesure tey ci bëccëg bi dafa xëy wóorul woon ba midi rek mu mesure kon koor gi dab na ko an yabluga mu daal di mesure saxiirun xale aw yaqil majnuun kii dafa dofoon waa ah, fan yëpp dafa dof ñu dem yóbbu ko faj ko indi ko tey mu normal wér tey woor tey aw yabru amarit dafa feebaroon démb ci guddi ba ñu xëdd ba pare ba mu dem dispensaire ñëwaat wir ne isa xasala an saara min ahlil wujub gis nga léegi mujj naa nekk ci ñi nga xam ne koor war na ci seen kaw hmm? an saara min ahlil wujubi fi asnaai haza al yowmi mu ne ci biir bis bi ci waxtu wii mujj naa nekk moom waa moom xale bi moom ki feebaroon moom ki dofoon mujj daa nekk ku war a woor mu ne wa kaana haulaai qad asbahu muftiriina dañoo dogoon wooruñu woon ah fan yëpp wooruñu waaye ñu jékki-jékki rek tey jii ñu ne leen da ngeen di woor fa man lazi yalzamu comme wooruñu woon léegi nag xale bi mesure dab na ko ku dof ki wér dab na ko ki feebaroon wér dab na ko fa man lazi yalzam ñoom ñett ñi léegi lii dab na leen léegi lan moo war ci ñoom mun a yaqulu fi haadihi l xaala borom téere bi wax na ci jamono ji ci heure bii innal wujuba alayhim amraani ñaari mbir moo leen war ñoom ñett ñoom ñett lu leen war ñaari mbir ñett ñi kan kan la Babacar Babacar ku feebar ba tane ku ba tane ak euh, ku dof ba wér ku dof Ndaw ñett ñi kan la mhm. ak xale bu majeure mu ne ñi léegi li war ci ñoom li leen charia sant amraani ñaari mbir la ba ca jiitu mooy al imsaak dañuy téyewu gis nga de foofu ñu leen ne war ngeen woor rek acca dañ naan kër téye téye koor gi acca daa ci dugg yéene rek daa ci dugg ba mooy première kenn du lekk ci bëccëgu koor bëccëgu koor kenn du ci lekk dafa araam même bu fekkente ne da ngaa biddanti woon wala xëddoo wala yëgoo woon weer feeñ na nga xëy rek ñu ne la weer fekk ndékki nga ba suur ñu weer feeñ na da ngay continuer dootoo lekkati nga añ ba suur ñu ne la weer feeñ na da ngay continuer doo lekk ba suur ñu ne la weer feeñ da ngay continuer kenn duñ ko wax weer feeñ na muy lekk loolu dafa araam musiba la kon ñu ne lëng ñu ne leen weer feeñ na ñu naan ba subaak ba nangam nangam wala ñu ñoom diw la ñuy àndal nag du ñu ànd waa Fuuta waa jaxaay la ñuy àndal lu musiba la suñ la nee weer feeñ na wooral bul xaar ko àndal ndax foofu war na ci yow al imsaak beneen ba leen war lan la wal ak fay lan la ñuy fay Seydou bis bi ñu perte bis bis bis bi perte benn bis boobu yeneen yi nag ñoom yeneen yi passé yi yooyu duñ ko fay lu tax boobu xale bi majeuragul woon ku dof ki wéragul woon xale bi ki ci tegu ki feebar ki aywa ku feebar ki nag moom dafay fay maa ñaar ñële ñoom affaire yi teguwul woon seen kaw su ko defee li war ci ñoom mu ne ñaari mbir la wax na ñaar yëpp ban la ñaari mbir yi lan ak lan la dañuy téyewu waaye dañuy fay mu ne wayal taxiqu bi haulaai aydan mu ne encore ak ñii tamit mbir mi war na ci yéen mi war na ci ñoom ñan la man qadima min man qadima musaafiran ak koo xam ne dafa ñëw tukki dafa tukki woon waaye ñëw na yaani al musaafir ku tukki woon allazi qadima ila baladihi mooy ñëw na ci biir dëkkam egsi na ci ay mbokkam mu ngi ci biir këram kooku tamit koor gi war na ko dafa war a woor wa kazalika iza tahuratul xaait naka noonu jigéen ju gisoon mbaax bu sete bis bu mu setee na sangu kontine koor akkan wa fi hukmiha wa fi hukmihima mu ngi ci seen àtte encore ñoom ñaar aydan an nufasa mooy jigéen doom doom mu ne kooku tamit su laabee dafa war a sangu daa di woor mu ne yaquulu inna al waajib alayhim amraani mu ne lim ne li war ci ñoom ñaari mbir la al imsaak mooy téyewu wal qada ak fay rahimahullah mu ne amsaku ñoo ñëpp dañuy téye koor gi bu bëccëgu koor gi jeexee ñu fay benn fan boobu nga xam ne moom la ñu dogoon ne fa de amsaku waqadawa mu ne fahim nal ndax comprendre nañ euh, dars bi foofu foofu leer na mu ne isa nazarta ila hadihi al masail al mazkura bu ñu xoolee masala yi ñu wax dinañ ci gis indana xaalataani dinañ ci gis ñaari ñaari anam ñaari wàll alxaalatul uula wàll wu njëkk wi wa hiya al wujub bi sababil bi sababil wujubi alxaalatul wu njëkk bi wa hiya wujub wujudu mooy amuk wujudu amuk sababul wujubi li waral koor gi ci ñoom loolu dafa am wujudu sababul wujubi la waral koor gi ci ñoom dafa am lan moo waral ci koor gi xale bi dafa majeur lan moo waral koor gi ci ki feebaroon lan moo waral koor gi ci ki gisoon mbaax na lan moo waral koor gi ci ki dofoon kon sabab boobu am sabab boobu moo tax koor gi war ci ñoom mu ne wa huwa al mooy xel bis bi nisbati ci côté lil noonu dof bi ah kii kat daa dofoon fan yi waaye wér na tey kon day woor wal buluuxu kii dafa nekkoon xale léegi majeur na bi nisbati li saxiir ci côté xale bi day woor qul mislu zalik mu ne waxal lu mel nii ma wax ay den ba tey ci kalmu saafir ci ki tukki woon ah da woor de lan moo tax damay woor ah tukki woon ñibbisi nga yaa ngi nii sa kër kon da ngay ñibbisi nga waxuñu ki tukki de soo fi jógee nag yow nga dem feneen foofu nga dem yow doo woor lu tax ndax gan nga fa fii nag nga ñëw tey nekkatoo fi gan ndax sa kër ñibbisi nga yaa ngi nii ci sa biir mbokk yaa ngi ci sa biir soxna yaa ngi ci say biiri doom yaa ngi ci say biiri xarit wala say biiri su boobaa ñibbisi nga dooto dangay ngay woor nekkatoo ko ku tukki mu ne naka noonu nu wax ci ñii mu ne xul du foofu la mu ne xul zaalika waxal loolu aydan ba tey fii kaafirin ci yéeféer aslama bu tuub soo tuubee tey koor dal na sa kaw dangay ngay woor lu tax lan moo tax nga war a woor dangaa tuub nekk nga jullit te ci koor nga tuub kon koor yi war na la mu ne isan na nekk na ci ñun salaasatu masail ñetti ñetti laaj isa aslama kaafir bu yéeféer tuubee aw aqula majnuun ku dof am xel aw balara saxiir xale wir kii meseur ah mu ne huna laaxis fii danañ seetlu annahu wujida bi sababil wujubi am nañu sabab bi nga xam ne moom moo tax koor war ci ñoom al wujub mooy lu war moom la gars di wax al fard léegi lan mooy sabab ñii dañoo war a woor sabab bi mooy kii dafa nekkoon yéeféer léegi dugg na ci lislaam kon day woor lan mooy sababu dof bi war a woor dafa feebaroon xel mi delsi na day woor lan mooy sababu xale bi war a woor dafa mesure dafay woor kon am nañu sabab sabab bii moo leen di pousser sabab bi mooy dal seen kaw ba ñu war a woor mu ne wa fii hiina ann al masail al oxra yulaahis fiha li taamul annahu zawalu maaniul wujub mu ne yeneen yi nga xam ne ñoo ci des nag ci ay masala ñu seetlu def ci ay teem ay gendeeku euh, yii tamit dafa am lu la tere woon loolu dañ na annahu zaala maaniul wujubi dafa am loo xam ne moo fi nekkoon moo fi toogoon tere laa woor loolu nekkoon fi toogoon fi tere laa woor loolu dem na su boobaa léegi da ngay woor lan la comme lan lan moo fi nekkoon toogoon fi tere laa woor ah? an tothara ha id ndaw si deret bee fi nekkoon mu gis mbaax léegi loolu dem na day woor ndaw si amoon doom looloo fi nekkoon loolu jóge na fi dem na day woor aw yaxdumu musaafir dafay nekkul woon du woor ñibbisi na day woor dafa feebaroon wér na day woor waaw mu ne huna zaala maaniul wujubi lala tere woon woor loolu deñ na kon yow jullit bi yi tere la woon woor suñu deñee suñu demee dangay ngay woor wa fi kulli haadihi al ahwal laa yufarriqu mu ne ci yii yëpp ñu wax ngir mii du ko séparé yëpp benn la ko def alwaajibu li war daal amraani ñaari mbir la imsaakun yamsuku baqiyatal ayaam dafay téye daal day téye daal woor bis yi nga xam ne ñoo ci tegu yëpp woor nañ fukki fan day eggali ñaar fukki fan yi des woor nañ ñaar fukki fan day téyew daal woor fukki fan yi des xadaral musaafir ila baladihi ki tukki woon teew na jóge dëkkam jóge jóge fa mu demoon ñëw ci biir dëkkam dafay woor baada zuhri ginnaaw tisbaar la ñëw ah su ñëwee yegsi day téyewu naqulu lahu taxaza ndax da nga yaañ <laughs> yatlubul xada mu ne waa këram defaral leen ma añ waaye ma añ wala aw maza naqulu lahu wala lan lañ koy wax ñu defaral la nga añ déedéet dañ koy wax am sikk ak akmil baqiyatal yawmi dégg nga koy wax am sikk akmil baqiyatal yawmi ila xurubi saa ila al ba pare saa iman téyel dañ naan ko acca téyel yéeneel nga dugg ci koor gi nga yéene eggali li des ci bés bi ba jant bi de sow ilaa xurub ba suma mu sow summa après nag alqadaau waajibun fi zimmatik ah soo wooree nag ba koor gi jeex yëgal ne fan mu tey bi bëccëgu tey bi da nga koy fay sa kawla tegu yaag borom bi tabaraka wa taala la da nga ko war a fay gis ngeen moo tax mbir yi mbokk jullit yi dafa laaj jàng dafa laaj laajte dafa laaj xam ab jullit du tërërëri rekk nekk ci ay lëndëm wala muy def lu ko neex wala mu topp ay jaahil yoo xam ne xamuñu diine dañuy woon lislaam rek di ko mbubboo amuñu ci lislaam dara lu dul tur ak mbubbu masala yi foog ñu jàng ko def ndànk tey jii ñu bare bare bare bare ci masala yi ñu wax jigéen day set daan ba suba waa ji tukki ñëw naan ba suba léegi laa yegg si damaa sonn gis nga xale bi mesure ñu naa ko ah waaye bàyyil ba ci kanam wala nga gis ponkal mu ne lëng-lëngaaral naan man dañ maa teggil koorak damay joxe ndogook ay caaxaan yoo xam ne ma bi biha min sultaan yàlla wàccewu ci benn lay lu dul ay bànneexi bakkan nag nañ leen góor góorgóorlu diine kenn du ko fooye waxoon nañ leen ci darsu passé laysal amru hayyinan mbir mi du lu ndaw mbiru jaamu yàlla la mbiru kenoy islaam la kenoy islaam keno xoolal loo oto oto ñaata ponu lay am kat nga dem dindi benn bi yaaxal nga borom oto bi lor nga ko oto boobu dootul dawati fekk pono boobu wóori wuñ ko ba indiwaat ko monte ko ci oto bi du daw yow tamit nga ñëw fekk kenoy lislaam lu yàlla samp nga dajji ko teg ko ci suuf nga defa ne ëllëg boo dajeek yàlla yàlla du jëflanteeg yow foog mu jëflanteeg yow ba mu saf-saf góor góorgóorlu incha allah ñu bañ a fawee suñu bopp ñu bañ a fawee suñu xel ñu bañ a fawee suñu diine ñu màtt ko ak suñuy dëgëj addu alayha bin nawaajiz matt leen ko ci seen dernier yi bëñ foofu la ñuy dugal diine dernier bëñ diine kenn ko log ngeen dégg ñu naan islaamolog ku log diine xam nga ne boo ŋaangee mu wadd nanu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. su fekkente ne am na ku ci am laaj incha allah bismillah